xeer maanaam. xeer noonu la situation bi. mais situation bi ñëpp gis nañ ka Siteu bu Ngor mënul daan Bébé Bis bi jël bu leer nañ ñu ne bëriwaat fan lañ ko teg. mais jàppoon ne bu muy bëriwaatul CNG dañoo ko teg ay daan. non yi ak lu mënta ka am loolu noonu après ñoom la ak mbër mi ak manager bi ak ñun waa équipe bi suñu problème mais maanaam lii dafa leer xale bu ndaw. préparé combat am def si xaalis bu bari booy Maroc la dem gars yi dagg seen xaalis daggal ko mu dem Maroc entraîné ji ñëw def si xaalis bu weex tal ñëw daan jël bu leer li mu woon di fii tey mat na 3 millions li mu woon di fii tey si ay nit 3 millions wala lu ko ëpp nit nag bu sonnee si làmbam dañ ko koy fonkal lii la ñuy def après booy bu ne neneen wala nangam ñu aj mbër mi ne booy dañoo indiscipliné nangam mais lii nii fa la tegu fa la tegu làmb mbër mu am coupe combat préparé ko pendant mois dem fu ne daj fu ne ay mbokkam nelawuñu bu ko yàlla mayee ndax ngelawaay nga ànd si ak moom mais am na loo xamante ne dafa rafetul. ñun ñun décision bi ñu jël mooy booy bi bëriwul loolu la waa écurie bi wax loolu la dirigeant yi wax bëriwul loolu la ñu wax. dirigeant yi ñoom jàpp nañu booy bi bëriwaat. dirigeant yi nee nañ du bëree coach bi nee nañ duñ bëree loolu ñun ñu si dara à part lu am tamit ñun ñu xam ne loolu moo am.